asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuho mbokk julli deeg taalibe yi ginnaaw bañ leen nuyoo ziare leen balu leen xaq ba leen xaq te ñaan suñu borom boo leen di am mbégte bu baax a baax di àndaat ak yéen suñu jotaay bii ñu baaxoo ànd ak yéen mu tudd ndax xam ngeen ni seen bokk Seexuna Faat di leen ko defal di ànd ceeg Serigne Khadim Thiam ci jàppandal gi tey nag euh, balaa ñuy commencé dañ leen di baalu xaq di leen baal di ñaan suñu borom boo leen jégal ci weer wi nga xamante moom lañ génn di ñaan suñu borom lépp liggéey boo xamante ni wala bépp Euh, ñaan wala jaamu yàlla boo xamante ni def nañ ko fa suñu borom nangul ñu ko te làqal ñu ko fu yàq eggul ginnaaw loolu nag comme ni ngeen xamee seen émission ni muy demee wala balaay booba tamit ñuy sant wala di nuyu waa Mouhalim yëpp ba deux trois quatre ba cinq ak waa sport ak waa euh, YouTube waa euh, Facebook ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax nag de leen di partager tey aimé waaw am na ci solo ah Euh, jërë ngeen jëf kon tey seen émission comme ni mu baaxoo ñëw mooy lan ndax xam ngeen ni ndax xam ngeen ni tey nag dañu changé euh, wala dañu dañu tuxu jëm ci beneen domaine domaine bi ñu jëm mooy lan mooy médecine précisément euh, transplantation wala ñu ni greffe du cœur maanaam dindi xoolu nit def ko ci beneen nit maanaam dindi xoolum nit defal ko keneen loolu mooy euh, transplantation cardiaque mbokk yi mbokk yi ndax xam ngeen ni wala ndax xamoon ngeen ki nga xamante ni moom moo njëkk essayé loolu maanaam essayé waxuma koo def ko mu jàll nag essayé ko maanaam jël xolub nit defal ko beneen nit ki ko njëkk essayé kooku mooy sa James Hardy James Hardy moom noonu loolu mi ngi ko defoon mille 1964 1964 ci la jëloon benn xool defal ko beneen nit mais nag malheureusement dafa échoué ndax quatre-vingt-dix minutes kese la dund daal di faatu ndax xool boobu boobu noonu ñu ko defal dafa compatible maanaam dañoo méngoowul mbokk yi euh, ñu jàll foofu ñëw ci beneen mbokk yi mbokk yi ndax xamoon ngeen ni ki njëkk jël ab kër maanaam xoolu nit defal ko beneen nit mu daal di jàll maanaam mu réussir kook xam ngeen nii ndax xamoon ngeen ab africain la macha allah bokk yi ab africain moom moo njëkk a def loolu ab africain moo njëkk a def loolu précisément sud africain la maanaam Afrique du Sud la dëkk. mi ngi ko defoon ci le 3 3 euh, décembre la ko defoon 1967 trois ans après bi ki nga xamante ne xamees def na loolu noonu kooku noonu nag euh, moo mooy mooy mooy. Christian Barnard Christian Barnard moom nag dafa nekkoon chirurgien cardiaque maanaam médecin la woon waaye wa xam-xamam dafa jëmoon ci wàllu ñaw ay xeet yooyu noonu la ay ci wàllu kër yooyu noonu cardiologie daal mais chirurgien la nag dafa am ay pàcc ci ci cardio cardio ñi nga xam te ne dañuy yore wàllu opération bi ñëw fee dugg na fi génn fi bokk ki nga xam te ne dafay toog naan la sa tension mi ngi pompé wala xol bi pompé na wërta pompe yi nii bind naa bokkuñ moom chirurgien euh, cardiaque la woon léegi mbokk yi biñ jàllee foofu noonu beneen question bi ñëw mooy ndax xam ngeen wala ndax xamoon ngeen ni patient boobu noonu ñu ko defaloon maanaam ki nga xamante ni moom lañ jafaloon kër boobu noonu ki nga xam te moom lañ ko njëkk defal mu jàll ndax xamoon ngeen nu tudd peut-être non mi ngi tudd Louis Waskas Kaay tur yi nag dafa xaw a ñaaw mais Louis Louis Waskanis Kaay Louis Waskanis Kaay mi ngi amoon cinquante trois ans maanaam mi ngi amoon juróom fukki ak ak ñett mbokk yi mbokk yi fu ñu jëlee kër boobu noonu kër boobu ñu ngi ko jëlee ci benn jeune fille boo xamante ni dafa defoon accident ñu jël kër boobu noonu defal ko ko maanaam ñu jël xol bi defal ko ko mbokk yi mbokk opération boobu noonu nag diire woon na cinq heures temps maanaam defoon nañ ci juróomi waxtu ci di dindi def dindi def fii ñëw fii nii defal euh. mais moom it malheureusement jàll na nag waaye bi mu jàllee mi ngi dund fukki fan ak juróom parce que opération boobu noonu. ñi ngi ko defoon 3 euh, décembre te kii mi ngi faatu 21 décembre ci même année muy 1967 kon tax ko yàgg waaye daal almuhim jàll na loolu nag bi mu amee rajo internationaux yi ulama yu borom xam-xam yépp mu nekkoon coow nag maanaam mu mu mu nekk loo xamante ni lu lu rëy ci àddina dañ naan àddina euh, lu phénomène am na fi bu bees mu nekkoon lu rëy rëy rëy rëy ndax xamoon ngeen ni Christian Barnard moomu noonu mi ngi jànge woon wala mi ngi doon suivre ku mel ni que euh, Lower ak Soemay ñoom ñaar ñooñu noonu ñoo nekkoon ay professeur am mbokk yi ñaar ñooñu noonu ñooñu tamit def nañ benn euh, transplantation ci benn xaj maanaam benn xaj boo xamante ni dañu jël xolub xaj bi defal ko ci beneen xaaj loolu mi ngi amee woon 1960 ñoom ci ay xaj dañ ko defoon mais seen élève bi ni nag moom moo génn macha allah daat koy def ci nit ñaar ñii nag ñoom ay américain lañ euh, Christian mii nii Barnard mii Amérique la jànge tamit ñoom États-Unis la jànge précisément États-Unis foofu la jànge ñoom ñoo ko formé mbokk yi li ci gën a yéeme mooy ndax xamoon ngeen ni ndax xamoon ngeen ni jël nañ xolu mbaam xoox defal ko nit jël nañ xolu mbaam xoox defal ko nit ndeysaan lu doy waar <laughs> xolu mbaam xoox lañ jël defal ko nit mbokk yi kiñ ko defal nan la tudd kooku mooy David Bennett mu ngi amoon cinquante trois cinquante sept ans cinquante sept ans lii nag yàggul mu ngi nekk sept janvier bii passé sept janvier deux mille vingt deux bii nii ñu génn fan la États-Unis mbokk yi mbokk yi ndax xamoon ngeen ni ndax xamoon ngeen ni kër bu këru mbaam xoox boobu noonu ñu defal euh, nit ki avant ñu koy def modifié nañ ko gènes yu bari dañ ko modifié dañ ko modifié synthétiquement maanaam suñ ne gène maay genre ay euh, genre genre genre jëli lay doon wala genre hormone lay doon yoo xamante ni dañ koy dañ koy dañ koy day nekk ci biir nit ki yooyu yëpp dañ ko changé modifier ko ba mu méngoo ak kiñ ko war a defal maanaam ba mu compatible ak kiñ ko war a defal mbokk yi ndax xam ngeen kooku noonu nan la mujjee peut-être non kooku mbokk dafa mujjee faatu après deux mois bi mu dundee deux mois dafa daal di faatu mi ngi faatu 10 euh, mars 2022 bi nga xamante ni moom lañ génn mbokk yi mbokk yi ndax xamoon ngeen ni avant ñu koy defal mbaam xo xool mbaam xo avant ñu koy defal nit ki nii mbokk yi ndax xamoon ngeen ni essayé nañ ko ci golo maanaam xool mbaam xooxu jël nañ ko opéré ko dindi ko defal ko ci golo euh, golo gi dund trois ans ci loolu lañ sukkandiku ba gis ni kat di war naa mën a jàll ñu defal ko nit mais kii ñu ko defal nag moom moo am choix boppam parce que boobu faatu rek moom moo fa sës ndax moom ci boppam moo ko waxal boppam ni booba euh, def opération bi wala faatu rek moo fa moo tax ma choisir def ko ok mbokk yi na xamoon ngeen ni association boo xam bi nga xamante ni ñoom dañu féetewoo aar animaux yi lii daf leen a metti woon lool biñ jëlee xolub mbaam xuux bi defal ko nit daf leen a metti loolu mbokk mbokk na xam ngeen lan lañ wax li ñu wax mooy dañu wax ni maanaam mala yi suñu borom daf leen a bind comme ni mu bindee doomu aadama kon doomu aadama yi ëpp leen àq ci ñoom ñuy dund kon nekk nekkuñu fi pour ñu leen def ay essai clinique maanaam eh, di xool ba xam test ba xam baax na ak baaxut loolu wala di jël seeni organ di ko jaay wala di jël seeni organe di ko defal ay nit loolu eh, du yoon ñoom rafetlu wuñ loolu noon mbokk yi mbokk yi xam naa foofu lañu ñuy waaye balaa ñuy tàgg ko yéen dafa am ay bidaa asila bidaa asila wa maanaam quelques questions yoo xamante ne dañ leen koy posé mbokk yi yii moom du am réponse wala boog man du ma joxe réponse bi peut-être da ngeen am réponse bi ci njëkk mooy mbokk yi ndax dagan na nit ki ñu defal ko xolum mbaam xoox maanaam ñu changé xolam defal ko xolum mbaam xoox mbokk yi euh, mbokk yi dafa mel ni dañoo waxoon dañoo jàngoon nii lépp luy dund rek lu laab la loolu la Imaam Malik wax peut-être ñeneen ñi waxuñ loolu mais Imaam Malik loolu la wax lépp luy dund laab na ba ci mbaam xoox tamit buy dund laab na mais problème bi mooy mbaam xoox mi dundatul kon ndax dañuy jàpp ni sobe la wala xol ba cay génne dañuy jàpp ni sobe la maa ngi ci question yi fiq yi ba léegi bu fekkee ni sobe la yéen mbokk yi bu fekkee ni sobe la ndax dagan na kon jëmm jooju noonu ñu defal xol mbaam xoox muy laal kaamiñ ndax fu mu toll dafay nekk ak sobe beneen bi sax mooy mbokk yi ndax dagan na moom mu jiite nekk imaam mbokk yi <laughs> euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokk Cheikhouna Fall la woon ci kàddu gi feggoog Serigne Khadim Thiam ci jàpp ndal gi jërë ngeen jëf ba ban yéen incha allah seen émission ndax xam ngeen ni jërë ngeen